أورثني مواهب القياس يا من سقى صدور في قياسي صلاة الذي في كل سهر وفي سفر amaani ala maayin maal ab sawa sawar segam ndamal Seex Bamba mooy miti seeni xol ci not jëmmu yëpp moo fal borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatoo bokk jullit yi bokk taalibe yi bu ngeen noo fii ci dëkkub seexul xaddim bi muy Touba Mbàkke lan mooy bëgg xew ah ndaw dëkk bi mawahibul yaas mooy ndaw yi nga xam ne se ni ñoo àndandoo di liggéeyal sëriñ tubaa bëgg sëñ tubaa wóolu sëñ tubaa doyloo sëriñ tubaa at mu jot nag ñuy def waajtaayu màggal gi ci mars bu mag bi nga xam ne mooy doxantu bi ngir liggéeyale ko sëriñ tubaa daaw ñu defoon ko nag am ci ndigal ren jii bi nga xam ne nii màggal gi jub si na dem nañ ci kilifa yi dem nañ ci ki nga xamante ne mooy kàddu Serigne Touba muy Cheikh Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir ba nu fa jógee dem nañ fi ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Jëmb Fall di maam Cheikh Ibrahima Fall ba nu fa jógee dem nañ fi kilifa yu takku. ñu gën caa ràññee sëñ Abdou Karim Mbacke moom Serigne Fallilou ñoom ñëpp ñu ñaanoonu ci liggéey bii ndaw yi nga xam ne ñoo nekk diggante Mbacke ak Touba ñooy am mbégte di woo ñëpp ci bis bi nga xam ne sëni moom la ñuy amal at mu jot ren ji mu dëppoog la 4 octobre fii ci Touba. nii nag la ñu ko bëggee bu nu xëyee woo nañu ñëpp ci la 4 boobu muy ajjuma ji njëkk ci safar ci kër sëriñ Cheikh Saliou Mbacke gi ci corniche ci ruutu Madiane bi foofu la ta foofu la ñu dox doxantu bi jëm Daaru Marnaan kër Sëriñ Touba mooy marché bi ñu ngi ciy woo waa Touba gépp ba wunu góor ba wunu jigéen ba wunu mag ba wunu ndaw woo nu ñëpp ci marché boobu ñu ci amal nag waxtaan yu am solo bu nu yeggee Daaru Marnaan ci taxawaayu nag. sëñ Gana Messere mi nga xamante ni sëñ Touba rek lay wane na ma ko defee woon daaw ñëpp xam nañu ko waaye ren jii lañoo bëgg mu gën a yokk ñu ngi ci invité kilifa yëpp bis baa ngoog le 4 octobre ñu ngi ciy woo ñëpp di nag jawri ñi nga xam ni ñoo ngi ca bitim réew ñoom ñëpp di ci taxaw taxawaay yu am solo ku ci mel ni booy Jóob ñu gën koo xam ci sëñ Mut Jóob ak sëñ Mbàkke Mbay Italie ak Mor Kan Espagne ak ña fa nekk ñëpp di sant nag ay jàmbaar yoo xam ne dugal nañ seen loxooy ceef ji ku mel ni soxna Moomi Kebe moom alxaaji Njuga Kebe jëf na ci jëf ju am solo ñoo ngi koy sant ndax ñun sëñ Tuubaa ku ci jëf danañ ko siiwal te soxna Moomi Kebe jëf na ko nii nag la yëf yi tëddee danañ jël kàddu gi jox ko siñoor Lo ñu gën koo xam ci Moustapha Lo siñoor bu ñu noppee danañ jël kàddu gi. jokko sëñ jii li ñang kennal sëriñ Touba bu ñu noppee danoon jël kàddu gi jox sëñ Seex ture mu wax ci kàddu daayira yi woote daayira yi waaye bu ñu noppee danañ dem ba Mbàkke Bawal nag jox sëñ Basiiru Ñas Baay Faal mu wax ci kàddu Baay Faal yépp ndax yëf diggante Touba la ak Mbàkke kon bis baa ngoom nañ ñëpp waaj bu ñu noppee nag ñu joxe jàmbaari sëñ tubaa ji ñu jox ki nga xam ne sëñ Touba lay wane ñu jox ki nga xam ne sëñ Touba rek ko ñor ki ñu jox ki nga xam ni moo kennal sañ Touba muy sëñ Gana Messere Muxtaar kon bés baango awrasani mawaayib al qiyaasi yaa man saqa sudura fi qiyaasi bismillah auzu billahi min aseytaan rajim barke cheikhul xaddim barke cheikhul xaddim euh, ñoo ngi ziar cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général des mourides yàlla yàggal ko fi wéral ko di ziyaare jëwriñam Cheikh Mouhamadul Bachir euh, suñ borom bàyyil ñu ko fi ba ca kanam a kanam a kanam ñoo ngi fii ci kër Serigne Nganda Mesere ñu jëm ci bis boo xamante ne nii yaakaar naa ñoo ngi ci deuxième édition bi daaw la ndawi tuubaa toog xool ba jàpp ne amuñu lenn lu du Cheikhul Xaddim waruñoo kennal kenn ku du Cheikhul Xaddim ndaw ñu ne jóg ñu jóg jàpp bis boo xamante ne nii bisub dox lay doon ngir sant Cheikhul xaddim ngir kennal Cheikhul xaddim daaw doonoon première édition bi ñu amoon ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla def bi ñu koy fekk ci kër Serigne Touba di ko ko yëgal mu ànd ci ak mbégte moo jël ci loxoom bu sell ba bik ak fooy bindal ñu baytul bul akiyaas ne ñu liggéeyal leen ci Cheikhul Khadim daaw ndawi Touba yépp ànd joxante loxo euh, bi ñu jullee ajjuma daaw mi ngi nekkoon la 4 octobre bi ñu jullee ajjuma ba pare ndaw ñépp sol mbubb yu weex yëkkati benn nataal ne jërëjëfe Serigne Touba doxe ci 28 jëm Daaru Marnaan ci kër sëriñ Touba bis boobu lañ jëm bis boobu lañ dëgmal ñi ngeen gis ci sama wet di ay jëwriñ tudd leen kenn ku nekk mënu ko waaye koo leen fi gis rek xam leen ne jëwriñ la ci liggéey bi ci kuréelu Mawahibou Akyas di ay ndaw yu gëm seen bopp takkutoo jox seen bopp Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar ja kon bis boobu noonu la ñuy waaj bis boobu noonu ci lañ jëm bis boobu noonu ñu ngi ko jàpp le 5 octobre bii ñu jëm ndax Serigne dana danañu woon def leen ko waajtaayu safar yàlla def ku ne xam na ne ñi ngi jëm ci Masaliku murid yi ñëpp nga ñi ëpp ña nga euh, ca ndakaaru ñi fi des kus néew jàpp naa ne fii ak suba dinañ dem fekki mbokki taalibe yi foofu waaye dañoo jàpp ne suñ ubbee Masalik ba pare Touba gii lañ jëm si ndaw ñu jógati santati Cheikhul Khadim bis boobu la ñuy waaj kon ñoo ngi ci woo ñëpp bépp ndaw bu nekk ci biir tuubaa ñi ngi lay woo bis nag ren bis bi dafa changé ndax fi ñu doon déparé déparé fa ñi ngi déparé ci jumaay Serigne Cheikh ci korniis bi dox jëm daaru Marnaan bis boobu dañuy ñaan képp ku ci ñëw nanga ànd ak ay yar nanga ànd ak ay teggin te xam ne benn bis la jënn jëmm lañ fay kennal muy Cheikhul xaddim lan lañ fa woote kuy ñëw solal mbubb mu weex tàll àndal akub yar ànd ak akuy teggin benn nataal lañ fa soxla muy nataalu Cheikhul Khadim kon ndawi Touba. ba Mbàkke am na jëwriñ yoo xamante ni ñi ngi toog ci mbooloo mi Mbàkke lañ jógee euh, bëgg nañ fépp foo xamante ne nii ab daayira ma nga fa wala ab euh, kuréel goo xamante ne nii da ngay kennal Serigne Touba bis boobu noonu du bésub kenn bésub Cheikhul Khadim la kon nañ ko waaj ndaw ñu dëkk Touba euh, ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp le 4 octobre daal képp ku ñëw ci bis boobu yàlla na Serigne Touba taxaw ci say mbir ndax Serigne Touba rek lañ fa bëgg a waneeti Serigne Touba rek lañ fa bëgg a kennal kon maa ngi bàyyi sama jëwriñ ñi nga xamante ni ñoo topp ci man ñu woote woote bi te ñu xam ne bis boobu bis boobu loolu rek moo ko tax a jóg. salaatu lasi fi kulli sahrin wa fi safar amaani ala maayin maalab sawa sawar. Ah, di nuyu mbooleem jullit yëpp fépp fu ñu mën a nekk boo leen gisee. jotaay bii ngeen xam ne dëgg mal nañ suñu bis boobee nga xam ne moom lañ defoon daaw muy dox jëm ci Sëñ dox jëm ci Sëñ Tuubaa nag yaakaar naa gisuguma lu ko gën a doon faraata fi mu ne nii ndax dëgmal Sëñ Tuubaa lépp loo mën a gis moo ko gën daaw woote woon nañ euh, ñëpp teew fa sant Seexul Xadim ren it ñëpp gis nañ ne ña fa teewoon ñëpp sant nañ yokk nañ ren nag ñu ngi woowaat mbooleem koo xam ne yaa ngi yëg sëñ Tuubaa ñoo ngi lay woo ndax euh, Seexul Xadim liggéeyal ko rek mooy ndam ci ñun ndax innal lazina saarahu li xidmati fa lahumu diyaara wasal na sëñ Tuubaa nee na mbooleem ñi may liggéeyal seen kër ma ngi ci digg na kon nag nangeen xante woo liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal sëñ Tuubaa nag dox jëm ci moom mooy li njëkk kon képp koo xam ne fa nga toog yaa ngi yëg sëñ Tuubaa te li nga li nga li nga yëgee sëñ Tuubaa di dëgg ci yow ñoo ngi lay woo ci dox bi nga ñëw ñu ànd dox jëm ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa ku dox jëm ci moom day ñu gàttandu la te ñu ñëpp sëñ Tuubaa gàttandu ñu lañu bëgg kon ñoo ngi woo ñëpp mbooleem fu nit nekk moo xam Tuubaa la wala muy Mbàkke wala fépp fu am mu murit nekk te mën a teew ñu ngi lay woo ci li nga xam ne njariñul àdduna bépp la ndax bir nañu ne buñ doxee Euh, am ci Pastef li bëgg ci Sëñ Tuubaa nañ ko am moo tax ñu ñëpp ñu àndandoo euh, woo leen ngir ngir ñu fekkee ko ci ajjuma gi njëkk ci weeru safar mbooleem koo xam ne yaa ngi yëg Sëñ Tuubaa muy jànkatu xasida yi muy ñuy dund sëñ bi ñuy dund sëñ moom ñëpp ci lañ bokk ñu ngi leen ci woo ñaan suñu borom defal ñu ci fekk ñu fekkee ak tal te lépp luñ ci def Sëñ Tuubaa nangul ñu ko. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. salli wa salliman yaa waliyu ala allazi sumaatuhu nabiyu wa alihi wa sahbihi akyaasi yaa man yu nawiru bi xiyaas yi barki Seexul Xadim mbokki taalibe yi yi mbokki jullit yi nga xam ne ñoom nañu jàkkaarloo ñu leen seetaan ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare jiital ci nuyu bi ak siyaare bi ak sàkku ñaan ak dagaan suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal fi Cheikh Muhammadul Muntaxa ba naal ak yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa suñ boroom mottalil ko ko ci barkeb Cheikhul Xadim ñoo ngi ñaanal baax jëwriñam Cheikh Mouhamadul Bachir moom it yéenem ak lool ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom lañu ànd ak moom ni ko mbokk yi nga xam ne jiitu wax nañu ko rek muy daaxira bi nga xam ne ñoom la ñuy wax Mawahibul Akyaas suñu bis bi nga xam ne baaxoo nañu ko amal bokk ci waajtaay yi nga xam ne ñoo ngi koy waajal bis bu màgg bu tedd ba di fukki fan ak juróom-ñett di eh, ci weeru safar te sëriñ bi woote leen ko boppam ci njaareem Cheikh Mouhamadul Fadal yaatal ko fii ci Touba bis nag buy ñëw bis bu mën a doon am na loo xam ne war naa firndeel bis bu ma ngay ñëw ci doxalinu àddina wi rek kii ñuy tuddee président saa suy ñëw am na luy njëkk a ñëw ñu xam ne am na luy bëgg a ñëw rawatina bis bi nga xam ne. suñu tey ak suñu ëllëg suñu defaru àdduna ak alaaxira ci lañ ko amee muy fukki fan ak juróom-ñett ci di ci weeru safar moo waral daaira bii di Mawahibou Akyas am yéene ànd ci mboolem daa daaira yi nga xam ne ñoo ngi ci yoonu murit wépp loolu nag bu ñu ci tuddee daa daaira fulkul masxun bi nga xam ne ñoo nekk fii ci tuubaa di suñuy mag di suñuy jur sax lañ mën a wax sàkku ñaan la ñuy def ci ñoom ci bis bi nga xam ni moom la ñuy jublu si ñu am ca ngërëmal Sëriñ Touba. ndax seen dund gépp dañ ko jeexal ci jàng xasida liggéeyalu ko sëriñ Tuubaa ñoo ngi ciy woo daa daaira diiwaanu xasaayit bi nga xam ne moo lënkali mbooleem ñi nga xam ne ñooy taxaw bisu xasida yi ci àdduna bi suñ ci jukki fii ci tubaa di ci woo daayira ahlu xasida bi nekk tubaa quartier Njenne nga xam ne moo jiite mboolem daayira durs yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba di ci woo bu baax suñu mbokki euh, kuréelkat yi nga xam ne ñoo yëngu ci xasida yi ci wàllu kuréel waaye ñoom it jàpp na ne buñ ci wooye mu waxe bu naaf yi bi nga xam ne moo lënkali mbooleem ñiy kuréel ci biir Touba te sëriñ Cheikh Dieng jiite ko mën nañoo wax ne dinañ yóbbaaleel mbooleem kuréel yi nga xam ne nekk nañ ci biir dëkk bi jàngkati xasida yëpp ñoo ngi la ci woo ñi ci yëngu ci wàllum rajas buñ ci tuddee Cheikh Abdou Lahad Touré sëriñ Ibrahima Gueye sëriñ Mara Seck ak sëriñ boole mbay jàpp na ne dana mën a yóbbaale mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum rajas wàllum njàng awoon suñ tuddee sëñ Xaadim Gueye sëñ Mara min waxoon léegi sëñ Ablaye Seck mii seen jëwriñ jàpp na ne danañu mën a yóbbaaleel mbooleem koo xam ne yaa ngi jàng njàngum awu kon daal bis baa ngoog di bis boo xam ne dañ ko waajal ngir sante ko sëriñ Touba jàpp na nag jëmmi sëriñ mi ku koy sant la ca war a jiitu mooy njàngum xasida moo waral waa Mawahibul Akyaas am yéene ren jii fee nga xam ne fa la ñuy tàmbalee dox bi ñu tàmbali faa yëkkati xasida ba fa nga xamante ni fa la ñuy yegg muy darul man naan fekk fa sëriñ Gana Messere Maxtaar mu waxtaanuñu ci sëriñ bi kon daal bis baa ngoog ñaan sëriñ Touba mu ñu ci ci jàmm ñu daje ca ngërëmal sëriñ Touba. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barki maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki taalibe yi mbokki jullit yi fi daje ñu ngi jëlee ci néew bi ak char bu baax nag. sëriñ seex Jëmb Fall mi fi nekkal maam Serigne Fall di ñaan sama borom yàlla na ko yàggal te wéral ko ba li mu bëgg liggéeyal maam Serigne Fall lépp yàlla na ko def ni mu ko soobee te ñaan ko moom moom mi fii Cheikh Ibra nag ñu ngi jaar ci buntam tey sàkku mbégteem te ñaanal sëñ Touba sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko sama borom yàggal te wéral ko li mu bëgg liggéeyal lépp yàlla na ko ko soobee te ko moom ñu teew fii nag ci kuréel bii nga xam ne mooy ndawi Touba yi di muritu sëñ Touba yi nga xam ne nangu noonu fab seen bopp ak seen jaayante jëme ko ci sëriñ bi sans borom dogal nag bi ñu yëkkatee bis bi itam ñu dox ak seen i jéego ba ñëw fa Mbakke fekk fa sëriñ Cheikh Jëm mu fa nekkal Cheikh Ibrahima Fall waxtaan moom ci bis bi suñu jox ci ndigal loolu nag mooy fi suñu teewaay ndax nun ni ko sëñ bi jàppee rek noonu la nekkee ci suñu ci suñu ruu mooy dañuy jàpp ne nu ñu woote ngir sëñ Touba buñ ca déggee Cheikh Ibrahima Fall rek nangu nañ Mm-hmm. bu ñu ko ca noppee dégg nag amuñ ca lenn luñ ca mën a wax ndax moom la sëriñ bi dogal ci dogal yi muy baal muridiyee di bunt bu murid yëpp ci sëriñ Tuubaa kon nag bu sama borom dogalee ñoom xelum waaxu ñëw ba jàkkaarloog sëriñ bi leeral ko ko gaaral ko mbir mi ni mu demee sëñ bi nangu leen lépp ñaax leen ca loolu mooy suñu teewaay kon nag la ca des mooy wàccaay wa lañ ñu ca doyee itam muy mbokki Baay Faal yi nga xam ne jenn yaakaar lañ am benn bunt lañ ci sëriñ bi génn ga lem muy maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu dina fu ñu mën a nekk ci diggante Touba ak Mbacké sëriñ baa ngi leen di sant baax tey yëg leen itam bu ñu bis bii nañ bàyyi suñu yitte ñëw def la ñu fa sant mooy tudd yàlla ànd ak ñoom di yëg ci kalamat laa ilaha ba fi ñu bëgg ñu ñu teeree fa ñu teeree fa ak ñoom ndax bu ñu wax ne dañuy dox ngir sëñ Tuubaa kat su ko murid ñetti murid yoo gis ñu taxaw ne dañoo bëgg a dox jëm sëñ Tuubaa fekk nañ bàyyi faale moom di bëri nga jëm ci moom mm-hmm. loolu mooy yitte ji su ko defee nag la ñu ca doyee mooy loolu sëñ baa ngi woote nag ki tur daayira yëpp bëgg daayira yëpp nañ bokk teew rawatina itam daayira bi xam ne moo lëkkale tuddkat yàlla yi fu ñu mën a nekk muy daayira xidmatu maam Cheikh Rangé Fall sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Sëriñ Assane ko rawatina itam daayira bi nga xam ne ko ñoom ñëpp bu ñu ci tuddee ñaari ñooñu rek nag yóbbaal nañu Baay Fall yëpp nañ xam ne daal liggéey bi liggéey bi sëñ Tuubaa la foo dégg nag ñu ne ña fa wooteel sëñ Tuubaa tamit dëgg ab Baye Fall moom jërut kenn di ko ca xaar saa bu ñu doxee jëm sëñ bi rek fekk nañ muy bëringu ndax Cheikh Ibra mooy ki nga xam ne sëñ bi rek la am xoolul keneen mel ni xelleeru sëñ bi la ko xool Cheikh Ibra Fall rek lañ mën a waat ci àddina ne bu ñu doon ba léegi itam sëñ bi ne lii ngeen doon wut kët nen leen man taxaw naa fii laa yem wala amatu fi moom rek la ñuy xool ci koo xam ne jàpp nañ dina ñàkk la sëñ bi rek la am boolu ko dara kon nag ñu ngi leen woo ci loolu den sant baax den gërëm ñu ngi ñaan ci baaxu sëriñ bi ak dooley maam Serigne Fall liñ ci bëgg yàlla ñu ko am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ni seetaan fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew noo ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mun naal yëpp yéene ko liggéey lislaam mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal Cheikh Ahmadul Bachir mi nga xam ne moo yor kàddoom te yor kàddu yoon wi suñ borom dëgëral ko te wéral ko te mu nekk ku am yitte lool ci yoon wi ñor ko lool wax naa ko kon ne ko ab sàmm balaa mën a sàmm day xàmmee jur gi jof si ak jof siwul loolu mooy ndénkaanu Sëriñ Tuubaa te moom xàmmee na ko ndax lu yëngu ci yoon wi rek xam na ko ko yëngal yëg na ko ko yëngal bu dee loo xam ne nii lu jariñ yoon wi la jariñ islaam bi mu soññ la ca ñaanal la ca bégal la ca kon noo ngi koy sant bu baax te di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla yaakaar yi ay kilifaam yaakaar ci moom yàlla na ko eggale bokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan na ni ñu ko waxee léegi ku dégg kàddu yi nga xam ne moo fi jiitu xam ne jenn jëf rek la muy waajal bis boo xam ne dafa nekk sunu kanam te waa daayira bi di Mawahibou Akyaas eh, di ko amal eh, muy jóge fii ci jumaay Serigne Cheikh moom Serigne Saalih ci corniche bi fas yéene ànd dox jëm ca daarul manaan di tudd yàlla di jàng xasiida di yëkkati baatub fa Sëriñ Tuubaa loola nag ñu bëggee ko ci melo woo xam ne day yelloo benn ak li ñuy def ba noppi yelloo béréb bi ñu koy defee muy Tuubaa te loolu la ca jiitu mooy ab yar ak i teggin ànd akuk dal te def ko yitte xam ne lii nuy woote eh, dafa bokk ci wone rek ne ndam la loo xam ne ndax ku ko seetaan ne mbooloo mi lu leen tax a jóg ñu ne maase di sant sëriñ bi loola day defe naa noo lislaam bi yëpp ñoo koy ànd lislaam jëmmi lislaam ji laa wax ci boppam ndax lislaam moom sant na sëriñ bi ndax lam doon sàkku di ko bëgg lépp sëriñ bee ko defal ku am ngorit waral na la ci nga sant sëriñ bi ndax la nga bëgg ci diine te mënoo ko sëñ bee ko def mooy gotti bidaa gotti ak réer yëkkati sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba sunna ne ca kaw ba ñëpp tekki seen bët bis bii di ñëw it ñu di ko waajal ba tax tey mbooloo mi war a ànd di dox mooy yelloo ak bërëb bi yelloog dëkk bi yelloog ndawi dëkk bi muy jenn yitte rek lañu war a muy sëriñ bi fu ñu ko mën a defe ci àdduna baax na waaye fii fi dëkk bi it defe naa kenn warul leen cee jiitu ci bis bi jub ñu àndandoo solondoo yére yu weex yëkkatindoo fotob Serigne Touba di wax jërëjëf sëriñ Touba ndax baat la boo xam ne bu buñ ko dee wax dana nu fekk yàlla di ko wax moom jëkkunoo sant Serigne bi bu yàgg ay kuréelam it di sant Serigne bi ndax chakaranil jamilu inda jundihi alxaalibina neama moxli abdihi kon kuréeli suñ borom ya suñ borom dafay sant Serigne bi kon nag jëf jëmu jëf moo tax yàlla sant ko radd yàllaahu nag boo ko gisee war a xam ne moo ci war a topp noonu Serigne bi. yàlla gërëm na ko sant na ko waaye nuy noo koy sante li mu nu nungul xam nga ànd di dox ak di wax lépp taxul nu fay ko waaye baatu nungu nungu gi nungu nu di taalibeem rek jar na nu waxuma di dox waaye jar na di bërëngu te sëñ bi nee na ku xalam jëm fi man ma dox jëm fi moom ku dox jëm fi man ma daw jëm fi moom ku daw jëm fi man ma faal ko sa bopp te ku ma yëkkat dutoo laal suuf mukk kon bis baa ngoog nañ ko waajal te xam ne sëñ Tuubaa yàlla jox na ko lépp lil muntaqa xal bi wa yadi bi xidmatin wa li xabaabil afyadi jërë ngeen jëf kon bis baa ngoog ñoo ngi woo ñëpp ci bis boobu muy àjjuma ji nga xam ne mooy ji jëkk ci safar bu nu julee tisbaar ba noppi julee àjjuma woo nañu ñëpp na ñëpp génn ku ko mën nag nga sol lu weex benn nataal rek lañ fa soxla mu Seexul Xaddim nu àndandoo di wax jërëjëf Serigne Touba ki nga xam ne nee na man lam yàkku naa ne yeer daa fal karim radio anni ridan lay yarim ku yàlla ni jërëjëf ku ni ko jërëjëf da ngay barkeelu kon nañuy dégg jërëjëf Serigne Touba awrasani mawaayibal qiyaasi yaa man saxaa sudura fi qiyaasi